coalition farlu ci département bam bi wane nañ seen bopp ci alxames fanweeri fan ak benn ci weer rab octobre 2024 Mame Thierno Niang di tête de liste départementale doon dalal ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diop di tête de liste nationale farlu bi tête de 17 dañ voté coalition farlu bi yéen dama leen a mënul a fay parce que man samay wax dama sama xol moo fees ndax Moustapha bu toogee ci sama wet man mosumaay toog di faral di yëkkati kàddu ci wetam ndax dafa am foo xamante ni fi ma toll la ma bëgg yéen ñi samay mbokk yéen ñi département bi waa Mexey waa Lamba yi fi toog waa Ndangalma waa Mbaba garage waa Ngoy Aliou Sylla Battal Toogarak Xanjar maa ngi leen di taalal samay loxo bu le 17 novembre jotee ngeen voté coalition farlu. moom mi maam Thierno Niang mu ngi xam xamle jafe-jafey Bambey. lii nag dañ koo teeru rek. waaye dañuy ànd ak yéen ñëpp dugg ci biir département bi ñu liggéey ndax yéen xam ngeen li xew ci département bi département bi ñun bañ juddoo ba léegi plus de 40 ans ñu ngi ci département bi mais amul amu leen benn satisfaction boo xamante ni yéen a ngi koy am ci département bi li fi xew nag duñ taxaw fii di weer wala ñuy wax waaye yéen xam ngeen Bambey lim yeyoo. ndàngal xam nga digganteem ak làmbaay la ñu yeyoo bambay ak mbaaba garage xam ngeen li ñu yeyoo tali yi gis ngeen yoon yi tey fi mu nekk ay tolof tolof ci ngeen di dox gis ngeen éducation bi njàng mi nam sooxee foofu tey ñun dañoo jóg pour jàpp ci loolu ba nga xamante ni lépp luy nekk seen jafe-jafe incha allah dinañ leen kalaame ak tête de liste coalition farlu bii kii bu soobee yàlla dina leen jàpp te dina leen jàppale. la mu sàkku rek ci doomu Bambey yi moom moo di ñu jàppale ko ngir mu taxaw assemblée nationale jooyal leen seeni naqar. ma bëgg nag ngeen jox ma majorité Bambey yi parce que Bambey yi man maa fi dëkk dañ leen di nax amul benn tête de liste boo xamante ni moo dëkk Bambey fii dañ leen di nax man maay seen doom maa dëkk ci maa dëkk ci dëkk bi maa dëkk ci département bi. kon nag ñu ñuy tànnal ay député di ñu tànnal ay maire dafiy jeex yéen yéen a yor yi te yéen ay fal dañoo bëgg bu ñu àggale 17 novembre coalition farlu ngeen xam ne moom ngeen di voté incha allah. Moustapha Diop dikkaat na itam ci jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am Bambey te ne maam Thierno Niang rek moom mooy solution bi. tey boo ñëwee fii ci Bambey dëkk yu bëri am ñu yoon ndox bi manqué na électricité bi manqué na. lu bëri manqué na fii ci Bambey jigéen ñi soxla nañ ku jàppale ci ay financement ak ci ay matériel jeunes yi soxla nañ liggéey soxla nañ financement pour mën a dem loolu nag am représentant bu mat sëkk bu mel ne moom maam Thierno Niang mën laa taxawal assemblée nationale xeexal la ko pour ma dem rek moom moo di waa Bambey yëpp jàppale maam Thierno Niang ndax xam na ak njàmbarte maam Thierno Niang mile. Bambey ma leen di ñaan ngeen jàppale maam Thierno ñaam muy seen doom yàgg ak man bu doon góor gu yaafus wala du góor gu engagé wu du ko jël di ko def tëdd liste ndax man Moustapha Diop ku ma xam xam na réew mi rek a ma ñor askan wi ma ñor Sénégal a ma ñor kon du ma fooye askan wi wala may fooye Sénégal di xool koo xam ne bëggul Bambey xamul lu ba lu di dund. ñu koy jël naan ko yow lan askan wi jóge woon ci département bi yépp ñoo fekk si ko ci Bambey ci wetu Temsega moom mile Mame Thierno amal na teerte gu xumb kii di ab leaderam di Moustapha Dièye jiital coalition farlu.